commencé rek lañ mën allo waaw man la waaw man la man la hmm. commande naa waaw gendarmerie ban bu Colobane waaw xam naa ko mës na maa may ñaar fukki junni waaye moom lu may bëddee sama tuut moom buñ koy audité man lu sama yoon ndax ñaar fukki junni moom kay na ci taq yëpp ba ma man ma set ci wicc rek allo allo ayu kii coupé ni di waaye yow yow balo waaw waaw nit ku la may ñaar fukki junni moom booba ca nguur gu njëkk ga ñu koy auditer mu lay woo loo xam abalodo wuyu somolo somolo baal ma waay seet teet teet teet ñu naan ma liste noire bi da kee cee bokk ba liste noire ndax ñaar fukki junni somolo yow yow yow may ma la fi woon kii junni junni ah yeleew man ak junni waaw déedéet joxuma la woon fii junni may la ko fii déedéet lu am na ay fukki weer ca gannaaw fii mayu ma la fi junni. man bi ma fi ñëwee daa man deux semaines. Hmm. waaw man nit ku la may ñaar fukki junni ca goma mooy nguur ga passé ñu woo leen ci gendarmerie yi di leen laaj alalu réew mi fu mu ne mu ni na ma ñaar fukki junni bind ma ci liste noire bi. bari waa gendarmerie di ma woo. billaay waaw. yow est-ce que ñaar rek nga ci lekk. ñaar fukki junni rek laa ci lekk. waaye moom nag comme que. woon naa ci waaw moom comme que moom ba muy neex daf laa may. waaw ñaar fukki junni. waaw instant bi bu demee bind la demal wuyu rek. xam naa lu may woyoon ndax ñaar fukki junni. mais yow xam naa ne ñaa fukki junni moom li ñu lay tëj du bari ñun sax mën nañ koo fay. di tëdd tuuti rek waaye garaawul. yàlla nga tëdd yow yow yow yàlla nga tëgg yàlla la yóbbu prison bu kee dugub tëj la fa yow bara loolu xamoo ci lenn. teet teet teet teet waaye nag yow yaa ngi jaxase buum yi rek sànq ba tey arrêtal xalam bi waay. am yoo xam ne ay moment la moment yu ñu d'écoute ak moment de calme ak silence déglul ah da ngay def baaxu tan yàlla te ne ne ne xam ne kenn xamul ko ni yaa ngi waatal li ngay def mënoo ko dara fi ngi ngay def jaxase rek nga fi nekkee li ñu waay jaw ah jëmbalaw ah. waay te te te te lan la waa ngéeg moom ku ca lekk woo nañ la man ñi lekk ci ñaar fukki junni yi woonu ma leen a woo man mii comme que ku ñi ci taq rippi lañ ñuy woo te man dama cee bëgg a set wicc ñooñ hmm. ñooñu doo leen woo de yow rek yaay dem waaw man man man dañ maa may ma lekk ñu woo man ñi ma may duñ leen woo nag waa yow ki ko mooy ki koo ki ki lekk alal bi hmm. kooku moo la may contact direct la waaw man ñi ma may nag man ñooñu kenn du leen woo ñoo xam naa ay dix mille rek lañ ciy lekk ak yooyu yow it rek te bu ma woowaat nag waaye yow tëdd bi loo ma ko yéenee nii. ah damaa xam ne ni nga ko def. bala bala bu bu bul xalam de bul xalam xam naa tey yow koy teel a nga sax ndax ñëw sa comportement fi mu toll nii toogaay bi nga toog dara neexu ma ci dara sa lenn neexu ma fi mu toll nii amul looy def mu saf ma dara. cee ñoom ku ñu woot sa appétit coupé say nelaw naaw ñoom ñooñu borom yére yu mbolo yooyu. ah ah yow. kee baro. Samba. baroo ngi ni kee hmm? baro. lu tax ñu fay la suñu xaalis. <laughs> ñaari ngoonal ñëwoo ci kër gi. wala Samba kii du baro. baro la. baro la. baro. dalaa joxul xaalis wala lan la. Ah, ah. Hmm. bañ a jox. joxu la. ah. Baro. dég dégg dégg ah, sàmb kat déet ma ne. Baro sàmb déet damaa bëgg nga déglu laaj wi ma wi ma wi ma. Baro damaa bëgg nga déglu laaj wi laajaat ko laaj wi. Baro sàmb jox na la xaalis wala joxu la xaalis ah joxu la xaalis baax na léegi man dinaa xam ne may def. Baro déglu laaj wi. bu jaaraat Baro. léegi man sama bopp maa maa maa la engagé sama bopp ngoon gu nekk dee ñëw sàmb wax ji bari na looy coow. alaaji man waxuma lii man après dinaa lijjanti loolu ak ba balaa alaaji yow nga nga nekkoon ci gouvernement waaw ñu tase nga may ma cent mille ñu woolu audit war nga maa woo ah waaw waaw xanaa xamoo si tolof tolof ngay xame ñi la bëgg ak ñi la bañ ñu naan ma liste noire lañ la def da ngaa dem liste noire ah sàmm nag euh, promotion de di ko ci am maanaam gis nga prisonnier politique. day man politique ma alaaji waaye lekk nga dañ maa may waaye lekk nga wuy ji rek xam nga woola taxuñu tëj la wuy ji rek ah <laughs> loolu day. non xanaa ñeme wuñ maa jàpp ci. <laughs> sànq kay déedéet allah jàpp lekk sa cooko dañ la kaa may. dañ ma koo may. Ah, baax na baax na. asalaamaaleykum. Euh, maaleykum salaam. kon Baro ñëw nga tey. ah tey léew la ah. la laa doon wax léegi. waaye foddal xalam wi waay. waaye ñëw nga de. kontaan naa ci yow xam nga li tax ma kontaan ci yow mooy lan. waaw da ngaa silwiise. merci beaucoup mooy yow mayu ma la woon fii dix mille francs. <laughs> ça ay dix ay dix mois yooyu. mu jaaxaloon ma lool nag. Ah. ndax yow. waaw may ma dix mille man. waaw keroog yéem na ma keroog. ba ma la ko mayee de yéemoon na la. waaw may nga ma dix mille moom. waaw yow xam naa ne yow moom faw ñu ànd. vraiment te fan yu ñu ànd noonu. Colobane. <laughs> <laughs> ah da nga ànd sa xaalis ba léegi kon da ngay. déedéet nuggiwu ma damay wuy ji. maa ak yow danoo lekk liste noire. loolu. Colobane waaw ki ñu ko ah? mayoon gendarmerie. gendarmerie baat. xaalis boobu ki ñu ko mayoon. waaw moo fa yóbbu moo fa yóbbu sama tur ma yóbbu fa sa tur. fan. liste noire. ah déet. audit yi la ñu ne fi mu toll nii te père da ngaa juum de. da nga ma caa tuddaale ma ñaari junni lekkoon nga ca ñaari junni nag sama. Ah, lenn naa la ko xamal. Ah. alaaji ah. léegi nga ñàkk xarit de kon ëpp naa wax ginnaaw dañ koo woo gendarmerie ah. lekk na cent mille waaw audit ah. dañ koy audité waaw yow yow mii dañ lay audité ñaari junni boo bëggee ma jox la ko léegi déedéet ba nga koy joxee ki <laughs> dé ba bu doon loolu ñooñu toog seen kër joxe ji ko foofu mën naa joxe ñaari junni déedéet déedéet yàgg moom am naa ay une semaine pen lay doon waaw waaw waaw yow tey ba ngay ñëw yow rek ah déet waaw mais Ndiaye yaa ma wax déglul moom moo ne ma. Ah. ngonalu tey jii. waaw maares invité bi. kii bul invité xanaa kii invité bi. ah moo ma ko wax de kii invité bi. moo ma ko wax de dëgg dëgg. moo ma ko wax invité bi dina ñëw. waaw ndax da ngeen may lal ay dil. di ma tegi plan. waaw ak di ma gas bëgg maa saraxe. waaw si naka. du da ngay jaay yi fi xàmb ni da ngay sampaat xàmb ci kër gi. waaw parce que yéen naa ko ci kër gi di tuuri soow. di woo ay rab. dafa bokk sama si man. di dinaa la gis dinaa la wool ku la gën a sës. sës leen daal xam naa ko moom. waaw lu ma andi. Ndiaye ci loolu laa doon bëgg a wax. xeeti téléphone bi damay gis ministres yi député yi président yi di ko yor lii la. lii ponkal la gar bi ko war a yor lii. ah kii mooy Samsung Galaxy Note 2. Ah. internet. waaw. MP4. waaw wifi. waaw lépp lu nga xam ne mi ngi ci xeetu ordinateur. waaw dañ koo wàññi ba mu ndaw. waaw lem ko def ko ci Samsung Galaxy Note de moom laa andi tey. excellent Sénégal bi. yow ci lay wuyu nii Sénégal ci lay wuyu jot jot li ma nii waay siis euh, ma xool. téye ko ndànk siis waa ji. téye ko ndànk waa Samsung ñooy defar loolu. waa Samsung ñoo koy joxe. ñooy defar loolu. waa mais. lii de euh, mi ngi mel ni euh, kii de. gis nga ne nga amee classe nii. waaw yaa nga ca kaw. fan si fan ci kaw. ca kaw a kaw. ci fan. waa jërëjëf man yooyu kaw. yow de ginnaaw da ngay wuyu ji moom ginnaaw da ngay moom soxla woo téléphone yi. da jot li ma loolu waaye. mais Sénégal a ngi dox nag. ah bah bien sûr man Europe laa ko bàyyi. yii nii bàyyi. rafet na de. ginnaaw yegg si na fi moom senegal mi ngi dox. lépp lu jëm ci matériel. waaw frigo bu rafet. waaw garanti. ku ko bëggoon fooy def baax. wala portable bu rafet. wala ordinateur. Mm. télé. machine. lu mu mënta doon. dama seet waa Samsung. Samb lii nag xam naa nag composé bi dina la jaaxal de. Mhm, moo tax dama ko bëggoon a ah, kii sax. àbb ah, àbb. pour euh, woo sama gan gi waaye bàyyi ma jël bii ma xam rek. moom moom ay ay kii am nu mu mel ay bouton. tactile la tactile amul bouton. Ah, bouton. waaw tactile baro lii la jukkawaay. allo. waaw ah. waaye nga woo a ngi. maa ngi toog fii di ŋang rek xaaral xaaral xaaral. xaaral xaaral ma ñëw njaay ma ñëw xaaral xaaral. teet teet teet teet man de ma toog fii yëpp. sàmm oo oh. maa ngi ñëw waay sama gan gi doo sol daal la. te waaye dama kii kilifa la nag dama koy jëli waay. man daal gendarme bi bi brigade bi ko woo. faale wu ko sax xam naa ko xam la rek. waaw dañ koy dañ koy nax. yoo tut tut tut tut. maa ngi toog di wax rek. na jóg na jóg na jóg wax rek wax rek. ak suñ suñ bi. salaamaaleykum ak awal bi mën ngaa aw nii si bàttal bi. man maa fi toog. salaamaaleykum ah. waaw. sëñ bi nga def waay. ñaan ñaan ñaan. Njaay ah sama doom Njaay kii moom sama doom Njaay Njaay Njaay toogal sëñ bi sant yàlla bu baax Njaay Njaay ñii sant bu baax toogal Njaay alhamdulilah alhamdulilah barikalla Njaay hmm, alhamdulilah na ngeen def ak coono ñii sant bu baax alhamdulilah barikalla barikalla na ngeen def nag Njaay Njaay da ngay tey na ngeen def alhamdulilah ay ah, yéen rafet na de na nga def ah, ah. sëñ Basse ngi alaaji kaay <laughs> waaw da ngeen def nag ñu sant baax naka liggéey bi nag naka yaram bi mbaa yéen a ngi am jàmm jaay na ngeen def ñuy baax naka liggéey bi ñuy sant bu baax ñaan ñaan ñaan ma def nii yaa ko daan def waaw indi invité hmm. waaye nag gannaaw kër gi xam nga kër moom boo ko moomut hmm. ñu héberger la fa rek <laughs> loolu wax ji ñaaw la de hmm. déedéet alaaji fa laay ñëw ak yow de déedéet fa laay ñëw ak yow parce que danga maa naroon a lal lal waaw dëppoo ma pëtëxal ci naka ah, ah. kañ. Ah. ndax nag alaaji yow sa mbir yi dam waaw ak say xàmb ak say samp. waaw yow loolu yow la concerné. waaw na nañu nga def ko rab yi am nañu ma def. waaw tey jii ñu dëkkati fii. nga ne ma damay jël ci ruq daal ci kër gi. bëgg a dégg nga maam lali xàmb. waaw ba ma koy def laaj naa la. indil naa la ku la gën a xami xàmb gën laa xami rab. mi ngi nii sëñ Bassirou Ndiaye mi ngi nii. ah sëñ Bas. sëñ bi kër gaa ngi. moom tur bi laay dégg waaye sa tur moom dëgg la jiitu na sa jëmm. waaw tey la tey la tey. dëgg gis dëgg. lii de yàlla tey ngeen di xam ni. yàlla ko am kon yaakaar naa ne Samb. rek la la si na. tey la ku ne di xam morom. ah Soumalo. indil ci. jaay na naan ci waay. Ndiaye moom defe naa ne fi nga ñëwee. Samba yéen mi tey de moo xewal tey moom sa ngoonal la tey sa ngoonal la tey moom. Ndiaye marketing moom doo si leen ah, man kay daanu naa ah? ah? na jox ko sant baax ñaar bàyyi nañ si jàmm ñuy sant waaw loolu moom hmm. daa bokk si ñun suñu aada waaw yow gaawal ci boisson muy mbirum xàmb oh. euh, si samay maam laa ko doon ne hmm. donc du ma dem Europe fàtte li nga xamante ni mooy sama cosaan te ba ma ñëwee wax naa ak moom ne ko dinaa sampaat xam yi fii ci kër gi. dëgg la kon bu ma la indilee. Mm. ne da ngay yëngu ci yooyu. <laughs> ah dinaa sawar loolu dalal la ci kër gi. waaw waaw ngoonal gi nag. vraiment ngoonal la. kër gaa ngi sa kër la daal ah sëñ Bass. Mm-hmm. comme lu la ko waxee daal. dëgg la defe naa ne kan gi xam nga ko. waaw sëñ Ba waaw ah, ah, xam nga ko ah, waaw waaw waaw kii ko xam daanaan kulli fadile na ngi nii ma indi samay gan ngay naataatle. Ah, da nga am lenn loo ciy werante <laughs> yow indilal baram yi waaye moom day xalam rek te du naan waay loolu <laughs> naa ko trop ah, comme ni la lu la ko waxee rek ngonal la rek mm, ah, ah waxtaan la rek ka fooree naan lekk ba suur ma dafa amoon démb sama waa ji dekkal ko tey waaye def naa ne andi nga gan gu mat gan ah waaye nag xanaa nag euh, mm. ah euh, mu ñu xaw ko wala du ñu journaliste nag du ñu dara nag waaye nag bëgg a xam rek bëgg a xam rek ku toog ak gan gu mel ni yow bari na ci kër gi ah werante gi bari na ci kër gi. waaw vraiment bëgg nañu yëfi xàmbak ay sampak di wooyi jinne da ngay jàng jinne jinne ngi nii toog. ci loolu. Hmm. moo tax ma koy laaj. Hmm. boo ñu mënee wax tey. Hmm. ci ngonal gi balaa lekk gee ñëw. kan mooy sëñ Bass. waaw sëriñ Bassirou Ndiaye mooy euh, sëñ Bass bu sëñ Usu Jama Ndiaye. Mhm. ñu koy baax. lu tax sëñ Usu Jama. waaw sëriñ Usu Jama boo ko déggee mooy sama waajur bu góor. Ah. Euh, waajuram bu jigéen moo tudd Soxna Jama Soxna Jama ñu koy dàkkalante ci sëriñ Usu Jama Njaay mm. Usu Jama Njaay mooy sama caatu maam mooy mm. Jama mm. Paate Njaay mooy baayam ku ne xam ko ci wàll xam-xam ci wàll kiraama ci wàll jinne sama papa jël xam-xam bi donnoo ko ci waajuram bu jigéen ñu koy wax Jama sama papa nekk nit koo xam ne ni ku yàlla mayoon la ci wàll mbirum xam-xamu rawaan ñu koy wax xundaama yàlla def tamit ci biir loolu sëriñ Bassirou Ndiaye mii di dàkkantee ci sëriñ Usu Jama Ndiaye hmm. moo waral ñu naan sëriñ Bassirou Ndiaye soppee na bi moom la ñëpp xam c'est ñu naan ko taalibi Seexul Xadim Xadimul Mustafa borom jamono ak jamono ci biir loolu moo waral waaw tur boobu yaatu ba àdduna bi ñëpp xam ki ñuy wax sëriñ Bassirou Ndiaye bu bu usu jama léegi sëñ Bassirou Ndiaye soppe na bi léegi sëñ Bassirou Ndiaye leer na nañ cosaanu tur wi mhm. cosaanu sant wi mhm. cosaanu jama mhm. euh, sëñ Bass yow ci lan ngay yëngu bokk kon kon ci lan ngay liggéey ndax kii moo wax man nag dégg naa sa tur dëgg la ñu bëgg a xam ci lan ngay liggéey waaw si euh, yëngu bi may yëngu ak liggéey bi mu ngi jëm ci wàll mbirum paj ak mbirum wàll ñaan di wane di waxtaan tamit ci télévision yi lu mel ni ne wàll maanaam jaamu yàlla ci nit ñi ni ñuy war a delloo seen borom ndax cosaan aada ci maam dafa mel ni ne nit ñi dafa am ñu ko fonk waaye dafa am ñu ko fonkul ndax gëdd gi ñu ko war a jox lañ ko joxul dëgg la ndax bu ñuy xool ci xeetu garab yi ndax tey lii ñu am na garab ñu tiim li ñuy wax mango waaye am na garab yoo xam ne boo doon wax xaax cooy ngeel ngel xañ soto ajana noyom tëmbu keng njàndam guddi gi lay duur bër waaw suñu bas yow lan ngay làq nii ci kër gi. jo tey ngeen jox nel mi. ah da ngeen daan woote. waaw. la wala maanaam du làq sax. ay garab ay plante yoo xam ne yàllaa ko saxal si suuf rek. ay tudd delluwaat fa moo dégg. xaax cooy belewel ngeen farxañ soto àjjana. belewel ngeen na keng njàndam guddi gi lay duur. mbërbëf guyaab mango berkese niima xotti biteel karasol papaya ananas. sàmm nañ mu nekk nag yoo xam ne dafa am lu ñuy wax doom xas reem sunguf ak xob bu ci nekk di cosaan aada ca maam ma koy jël nga xam ne dinañ ko mën a filtrer defar ko ba nit ki mën ko jëriñoo te du ko lor te amul benn effet secondaire bi léegi sëñ Bass da ngay faj rab ci sa waaw mbirum rab moomu nag di wàll ci daanu ay rab ak ay yéeseeg yooyu maanaam bu fekkoon dof la boo xam ne ni ñu baat baal ma ci wax ji sax koo xam dafa tàggali kook sagom ba xàmmeetul waay juróom yi xàmmeetul luy boppam xamatul sa turam mu doon wàllu ci mbedd mi di soli sagar sax man sëñ bu buñ ma ko indilee ma defaat ko mu doonaat doomu aadama. nit normal. waaw maanaam. damay gis euh, par exemple am na Espagne fële. Mhm. ay vidéo yu ñuy yu ñuy paasante. Mhm. par exemple ku rab solo ku jigéen. Mhm. léeg-léeg nit di ko faj. mais ndaw si day mel ne day am ki koy faj day wax ak moom. Mm-hmm. par exemple yow ndaw si ngay waxal. j'ai constaté. wala dafa am lu solo ndaw si loolu ngay waxal parce que dañuy gis nga koy poser question. Mm-hmm. waaw gisuma sa vidéo nag mais am na ñeneen ñu ma gis. Mm-hmm. donc loolu lan ngeen di waxal instant boobu. waaw loolu maanaam. ndaw si ci boppam. boo daxasee ba daanu. rab bi mooy dugg ci yaramam. effectivement su duggee ci yaram bi day nekk ci cerveau bi nekk ci xelam utiliser li nga xam ne mooy xelu ndaw si ba pare toog ci li nga xam ne mooy xolam. utiliser boobu muy utiliser ndaw si. mooy waral ndaw si day mel ni ku nekkaat beneen monde day mel ni kuy nalaw dootul bokk waaye bu boobaa jëmm ji mhm. bu ko nit ki gisee te xamu ko danaa mhm. ndaw si mooy wax ndaw si mooy dox ndaw si mooy def lépp ah. fekk rab bi mooy nekk ci yaram def nga gis muy boo téeméer bu daanoo téeméeri nit bu fukk fukki nit woon tey duñ ko mën tee ndax kàttan gi muy am day am kàttan waaw ba pare di yuuxu di say léeg mu saaga léeg mu wax wax yu bon dootul xam ne ndeyam ak baayam dóor la wala mu saaga la mhm. ñu mel noonu rek rab moo leen di jàpp ba nga xam ne ni da ngay gis rafet en jigéen yooyu ñuy dugg dañuy rafet lool ba mel ni ne maanaam taar ci ñoom rek la yem dëgg la dañuy rafet jekk mel lu leen neex waaw souvent jigéen ñi rafet ñi la ñuy sol waaw waaw mais mais bu boobaa rab bi da di dugg ba borom kër sax da leen di jafe hmm. ba pare di daanoog yi kenn xamul sëñ bi kii euh, damaa am lu ma jaaxal surtout sunu jamonoy tey jii sunu jamonoy tey jii hmm. xale yu jigéen ñi bëgg nañu solo gu ubbi ko buy wane seen dugg gannaaw. moo gën a bon bëgg nanu solo gu gàtt. Mm-hmm. bëgg nanu xeetu karaw yooyu ñuy jokk. Mm-hmm. bëgg nanu dox waxtu woo xam ni nag ñi dañ daan diggal ni waxtu yooyu na ca gone di toog. na ca mm-hmm. doomu adama sax la wax waaw na ca doomu aadama du toog. dëgg la takkusaan waaw timis ndax yow loolu. dëgg la mm. dafa am colk yoo xam ni boo ko solee mm. rab dalay yomba dugg wala dafa am waxtu yoo xam ne boo ko doxee rab dalay yomba dugg mm-hmm. waaw am na waxtu yoo xam ne boo ko génnee mm. moo moo ko dafa am borom lu mel ni guddi tey am waxtu yoo xam ne ni boo ko génnee yoor yoor la waxtu toog la sa kër noppalu wala waxtu nelaw la mm-hmm. bu fekkee ne nag sa colin gi dafa rafle nga xam ne ni sa dënn bi si biti sa loxo yi yeeg poqtaan yeeg yépp day feeñ su boobaa rab da lay romb yomb pour mu dugg la. ak tànk yi euh, col waaw moo waral léeg-léeg da ngay gis koo xam ne ni. waaw maanaam bu doxee ba heure yooyu. Mm. bu tëddee bu nalawee. Mm. day gént gént yoo xam day bari lool nekk ci cerveau bi. Mm. jaxase ko ba nga xam ne bu yeewoo da koy fàtt li mu géntoon lépp du ko xam. day gént di say góor wala muy gént xaj di ko dàq wala muy gént di gis ay ay golo wala muy gént di gis ay fas fekk yu meg noonu seytaane da ciy laxasu. ndax jigéen dañ koo waxoon day toog ci këram. yam sol lu jot lu yiw lu sulwise mm. heure waxtu julli bu jotee nga julli yara sa kurus gu ndaw di tasbiru ci laa ilaha illallah wala astafirullah d'accord léegi sëñ Bas sëñ Bas man li may laaj mooy mm-hmm. rab mm-hmm. nan lay duggee nit ki nit njaay mm-hmm. nga judd fi nga war a juddoo ñu yar la fi ñu fi la war a yare yar la ci yoonu siratal mustaqim nga xëy un bon jour rek ñu ne yow rab solu na la danga nga am nan lay duggee nit moom rab boobu moom rab rab ak lan mooy rab waaw rab ni muy duggee nit dafa mel ni ne nit ñi dañu war a xam lan mooy jinne hmm. boo waxee ci xuddaama ci rawaan ci batwalin da ngay xam lan mooy jinne kon différence jinne ak rab am na waaw différence rab ak jinne mu ngi mel ne diggante séeréer ak tukulóor ah. maanaam la ñuy def maanaam jinne hmm. ak doomu aadama ku ne xam ne ne jinne am na ku ne xam ne ne rab am na ndax nag boo xoolee boo seetloo ñun doomu aadama yi tubaab français yi ak indo yi ak ak ak euh, naar yi tukulóor yi wolof yi bambara joolaa saraxule ak ba ci pël yi hmm. ak ba ci indo yi ah. ñu ñëpp ci aadama ak awa luñ ñu sokkee ko waaye ba tey tere terexe ndax nuróowuñ li ñuy làkk nuróowuñ tamit ay ay ay maanaam ci suñu melokaan bi loolu boo déggee mbindeef mbindeef mooy lépp luy nooy du doomu aadama ba ci liy dox nii muy melentaan ak yooyu yëpp mbindeef maanaam yàlla bind bakkan yooyu du di yi bu ci nekk am na njëriñ ci dundam gi muy dund li tax yàlla di ko dundal laay léegi nag mu sàkk nit ñi sàkk jinne yi te nit ñi xamuñu luy jinne nit ñi xamuñu lan mooy rawaam nit ñi xamuñu lan mooy bat walin lu ci bari nit ñi dañ koy dañuy dañuy def lu mel ne li ñuy wax tricas maanaam war a xam lan mooy jinne jinne dafa foor foor goo xam ne ni am doole yow doo am mel am benn melukaan boo xam ne nii maanaam doomu aadama melul noonu waaye ci xam bi dogguma la waaw dogguma la damaa bëgg nga ñoom ñii ñu tëlañu nga faram fàccee ndax jinne ba mu ne maa fi ëpp xam-xam dañ ñu ko lu tax nga wax ko mu ne dama fee gën a yàgg yàgg yow mii yaa ñu am xam-xam ci lii damaa bëgg nga wax ñu euh, rawaan jinne ak rab lu leen wutale rawaan ak jinne ak ak jinne ak rawaan ak rab waa différence mooy hmm. comme tey pël bi ñu ne ko comme tey tukulóor bi wala hmm. ñu ne comme séeréer bi ak tukulóor bi waaw noonu la demee rek différence bi soriwul hmm. donc bu ñu xoolee jinne moom mooy li siiw moom la ñëpp xam. léegi nag waaw léegi nag dañoo dem ba nit ñi yeewu ci li ñuy wax rab. Hmm. maanaam di daanu. ak di gént di sëy. Hmm. ak jigéen joo xam ne rab da koy téye du mën a am borom kër ku ñëw wax dem. Hmm. ak góor goo xam ne ni rab da koy téye ba téye wàllu sëyam. ak góor goo xam ne rab da koy téye. maanaam daal amul njàmbaar. <laughs> waaw waaw nag njàmbaar gi daal day des. <laughs> waaw kay la ngi noonu du laajte lu baax. kii waaw amiin amiin yaa rabbi ba ba pare en di taal kër. <laughs> di taal kër yi. waaw di taal kër yi. léeg ñu indi ay ustuwaar ci kër. fekk da ngay gis koo xam ne ni. day toog di merte kenn du ko def. mu hmm. xol bi di tàng. Hmm. muy gis boppam. am na ci kër gi de. te kenn du ko def dara. am na fekk rab moo. waaw yow dem loolu gis kër goo xam ne ni. Hmm. maanaam. macha allah. Hmm. kër gu war a am jàmm lay doon. Hmm. waaye chaque jour coow day am. waaw yooyu rab da koy def fekk waa ji rab da koy def. waaw ngay gis koo xam ne ni. Hmm. maanaam day jékki-jékki rek toog benn place ñu sëcc rek. fixé fenn di xool hmm, hmm. waxu la kenn xelam nekkatu fi uh-huh. nga xam ne ne rab bi moom moo nekk waa dem na nga gis koo xam ne day jékki-jékki daanu hmm, nga gis koo xam ne dafay jékki-jékki maanaam di waxtu rek di waxtu te kenn du ko xam ko muy waxal doo xam ko muy waxal yow da ngay faral di waxtu sumbalu kaani na waaw ah? boobu la ah kaani ah? Ndiaye eh, eh, eh, waaw lekkal waaw Ndiaye da ngay lekkal lekkal waaw sàmm mi boo ko toppee doo lekk de waaye ah, man li ma seetlu mooy léeg-léeg nit daanu mhm. ñu koy jàngal alxuraan mhm. mais day taf nopp bi. waaw bëggul dégg alxuraan bi ñuy jàng ci nopp bi. effectivement loolu maa ngi ay émence yoo xam ne ni maanaam maa ngi ceeg ay seede yoo xam ne ni. waaw loolu la man mi maa leen di jàngal alxuraan ñuy daanu. ñu taf seen nopp waaw ñuy ñuy taf seen nopp bañ koo déglu. soo waxee astafurlah astafurlah allahu akbar allahu akbar ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulillah. rek ñu taf seen nopp commencé jékki-jékki yuuxu yii say. allahu ndax ñu bëgg dégg turu yàlla bi ngay wax. yaa ngi dégg ndax ah, euh, rab ak jinne mhm. dañu nekk loo xam ne rab dafa doy waar ku ko xamul mhm. donc bu ñu xoolee ci parti yooyu ñi nga euh, suñu maam yi cosaan ci aada boo mel ne lu mel ne kare séeréer yi mhm. wala lu mel ne lébu yi dañu def ay xàmbu xàmbu yooyu nag maam yi ñoo leen tooña ndax maam yeek fi bàyyi Ah. maanaam amul kenn ku mën a teggi xàmb yooyu ci ñoom ndax ku ci juddu tokkantal nañ la wala am nga xàmb goo xam ne yaa ko moom hmm. dinañ la rayal tuural la ba pare di li ci sang su fekkee ne ne yaa ngi ba Suisse hmm. heure sangu bi jot te ñëwoo daggoo billet jël avion ñëw senegal sangu hmm. fa nga nekk doo fa am jàmm waa léegi voilà léegi nag amul ci kër amu fa nga bëgg ko faa def loolu loo ci wax dafa bokk ci man waaw maanaam xam nga Euh, comme li ma ko wax léegi maam yi ñoo leen tooy mais bu maam yi xamoon hmm. duñ ko tàggat duñ ko def loolu daal def ko baaxut maanaam gàllaaj ci gàllaaj ga hmm. ci ñoom waaw ñoom lébu yi waa ak ñi ko am hmm. mais man man sëñ Bas Ndiaye man sañ Bas Ndiaye aw ma kii aw ma ay xàmb aw ma xàmb waaw aw ma xàmb sama kër man li ma am mooy sama kurus li ma am mooy sama mbind rab bu soxoor bu naree dugg sama kër sa du teg tànkam ci buntu kër gi pour dugg ndax li tax mooy buy dugg ci kër gi rek yaram bi day lakk. Hmm? waaw ma ni sëñ bi. doo ñëw ma jox la nekk ci kër gi fii. Eh, eh, eh, sëñ bi ah, kii sama man de xam naa ni yéen da ngeen am daan am. gan am lu ko bëgg a laaj da ngeen daan am gan ndax nan ko daan def nii. déedéet waaw déedéet waaw dafa a laaj. bu ngeen lay laaj da ngeen laaj sama autorisation. waaw d'accord je demande la permission. laajal merci beaucoup ma ni. dama lay laaj rek ci benn bu gàtt rek mm-hmm. faj. ñu am rab wala waaw wala déedéet rek. waaw waaw waaw voilà mm-hmm. léegi man si je comprends bien mm-hmm. Sénégal bari na fi bari na fi ñu nga xam ni. nee na dañuy fay faj rab. waaw faj jinne ak ay nooxóor ak wala affaire ay dëmm ak yooyu yooyu ah. daj dëpp gi mi ngi nii ah, toog man dama koy laaj nag. dama ndax ndax ñoom ñëpp a mën. wala dañoo mënante. wala yow ban position nga am. ci biir ñooñu nga xam ne ay guérisseur lañu. yow ban position nga ci jël avant ndaare ndaare pee wala lan nga ci jël. waaw maanaam képp koo xam ne ne. Hmm. yaa ngi def. Hmm. nit ñi di la fekk si. Hmm. di gis njëriñ. réussir na képp koo xam ne ni yaa ngi yaa ngi def maanaam li ngay def nit ñi maanaam yow li ngay def nit ñi gisuñu ko yow munoo li ki mën mooy yàlla kenn mënul ki gën a aay mooy suñu borom bi kooku mooy docteur bu mag bi mm-hmm. Mm-hmm. mais li ngay def muy réussir yàlla moo la ci may ndam léegi yow selon yow fajkatu rab yëpp yi nekk Sénégal a aay yow ah, fajkatu rab yi yëpp ñu nekk Sénégal mm. man su euh, mënu ma la wax ne la kii moo ci gën a aay mënu ma la wax man sama bopp man maa gën a daal nañ ko bàyyi ak nit ñi nga xam ñooy seetaan ak nit ñi dem ci ñoom ah déet man dama koo dégg de ah déet xaaral loo dégg xaaral dama koo dégg de may ko dégg ñu ne euh, ñaa may ko damaa dégg ñu ne mm. Serigne Bass Ndiaye mm-hmm. nee na mm. képp kuy faj rab fii ci Sénégal. wala jinne mooy paix moo ci man dama koo dégg. maanaam bu dee ne ci lenn man naa wax lenn. Hmm. bu dee ci wàllu organisation maanaam organiser li nga xam ne ne. mooy wàllu jinne hmm. xam ko mën ko. Hmm. ba nga xam ne kuy daanu ci suuf di dal dip ak koo xam ne ni rabal a jàpp bu bon wala jinne bu soxor moo la téye. soo ñëwee. dinaa dóor jinne bi duma ko eh. daan ko eh. ba pare daf faj la nga wér te dootul mañ ci yow dara te maa ngi wax télé yaa ngi nit ñaa ngi dégg jinne yaa ngi dégg ragalu ma leen waaw ma ni lekkool yi wax eh, nga toog ni jinne ngi toog sa lekkool yi mm. lekkool yi école yi waaw école yi baro gis ma ne ndox mm. baro seex ah, baro dafa coroxaan ma ne ko ndox ah. baro te nga dem teew ñu laa yeewi nga dem ci dallu tuuti Baro tee ngaa wàcc demal ci biir nga dallu tuuti nga jaaxal dallu tuuti waaw yóbbaaleel bés boobu dafa dafa jagati tey yóbbaaleel bés boobu mi ngi ñaq tooy xepp boo dul wax da ngay dee de fii ay américain fi nekk Samb yow kii foo ko jëlee waa déet mu ne mu ne ay jinne ngi mel ni na ko jàpp ah. ñu ngi jéggu ah, sëñ bi ñu ngi jéggu école yi ah. dañoo gis ni dañ ne jinne di tudd mm. jinne Mariama moo leen attaqué mm. maa ngi xew lu baax ñu jékki-jékki xale yi jigéen yi sayaka daanu ak i defi mbir mhm. ñu ni daal ginna Mariama moo leen di attaqué mhm. loolu dëgg la am déet waaw dañoo xamul waaw foofu sax kontaan naa laaj yi di ngeen ma ci laaj lépp booba ma dakkal waaw mhm. jinne Maymuna boobu ñuy wax waaw Maymuna wala Mariama déedéet jinne jinne Maymuna la ñuy wax moo daaneel xale yi jigéen yi ci école yi waaw ñii naan léegi dem nañ ba ne daanootuñ léegi ci dakaar léegi ñu ngi daanoo ci décrétion yi li wax. wax nañ di loolu li ñuy wax di ko wax ci xibaar yi. wax nañ ko jinne Maymuna. Hmm. daanilul kenn. déglu ma wayal la wayu Maymuna. wayu Maymuna. Ndiaye bokk mooy du def dara du def dara du def dara du def dara Ndiaye du def damaa bëgg nit ñi yeewu ci. damaa bëgg nit ñi yeewu ci wayu Maymuna lan hmm, du def Maymuna du ñëw. dafa ne. yaa daxmaalun. Hmm. wa day buusun. wa tey fuuxun. alxajla wa yaa Maymuna. lan loolu lan la. dégg nga bu tey jii bu fekkee ne ne am na nit koo xam ne tey jii dafa dañ koo cata ko topp. Hmm. wala dañ koo liggéey. Hmm. wala raba ko topp. Hmm. wala seytaane moo ko dugg ci fan fànn gu bon mu bëgg yi loolu set ci moom wecc mu tekki am wërsëg am bayre ubbeeku. da ngay da ngay jël benn kayit boo xam ne mètre kayit lay doon nga def benn ronron def yaa allaahu ci digg yaa allaahu ku ne xam ne ne mooy yàlla waaw nga daal di def benn wërale ko Seydina Muhammad fukki yoon ak ñaar mm. ci kaw yaa allaahu googu mm. nga xam ne ni da koy wër moo koy tëj mm. nga nga daal di def euh, ci buntu ba ci Seydina Muhammad buntu ba nga def fa allaahu mais da def yaa ndax da ngay dindi yaa gi def def allaahu gi muy benn ii gi nga daal di indi allaahu gi muy allaahu boo paree nag doo ko maas nga daal di koy wërale fukki ayatul kursiw nga def ca côté gii fukk def fii fukk def fii fukk def fii fukk boo ko bootee mu nekk juróom fukk aytil ku siiw hmm. nga def ca koñ ba ajib nga def ci koñ ba ajib maymuna nga def ci koñ ba le nga def euh, jibril nga def ci koñ bi fax fax faxlaam mooy rawaan bu góor ba moo war waral mu a ajib maymuna jibril faxlaam nga daal di bàyyi def beneen ronron boo xam ne dara du nekk ca digg ba mm. ronron boobu nag dara du ko wër say soxla nga fay dugg ku mel ne tey Sanex mi mu daal ne yàlla naa mucc ci cat yi mucc ci làmmiñ mucc ci liggéey bon yi pexe yu bon yi ci doomu aadama ci jinne ci rab ak seytaane yàlla na ma yàlla ubbi jox ma wërsëg gu barkeel yàlla naa tekki ba dootuma ñàkk alal ji yàlla na bëri koom-koom bi yàlla na bëri te képp koo xam ne yéena nga ma lu bon yàlla bu mu dal sama kaw waaye yéenu ma yow yàlla ndax ayatul kursi day sangu alxuraan soo ko defee pare nga jël xaatim nga jàmm ko soo ko jamee am na ay assoir yu muy àndal ndax damay bañ a wax nii gars yi di ko triser di ko jéem a def fekk du yoon bi dafay am wirdu mhm. soo defee nga jàmm ko ndox moomu nga wirdu ko ñaar fukki junni ay tur ku ak juróom-ñaari junni ay tur ku ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar nga doog a indi nag 313 yi bootee ko ñaan gi 313 basmala 300 313 euh, kulwa 313 fallaxi 313 ñaa euh, naasi bu ci nekk da nga ko ciy woo ñaari yoon cent yi ñaar fee ñaar fee ñaar ndax da ngay def 300 yi def fukk yi. def def ñett yi. nga daal di def fële fukk trois yi def fii fukk yi def fukk trois cent yi soo ko defee ñaan googu boo ko sangoo fukki fan ak ñaar. Mm. muy diggante fukki uh, turu Seydina Mohamed fukk ak ñaar yooyu wër yëpp borom bi. Mm. nga sangoo ko. Mm. xorog rab bu la toog cat bu la toog jinn bu la topp korog la lay bàyyi. waaw moo waral ñaan googu day déglu la mu fa wax. gis nga boo ne yaa dax maalun wa dey buusun wa tey fuxun alxajala wa yaa muy mun a hmm. da nga naan bi sam-samin bi tam-tamin bi arfin sulimin tamin mihrajin hmm. mihrajin zamat waaw foofu kon may mun a daanu lu kenn may mun a dafa tam du ay way de damaa eh, dégg ah. muy tam tamit rek. <laughs> dellu fa dellu fa dafa ne bi sam samin. Ah. bi tam tamin bi arfin mën naa la firil way bi dafa ne ilaahi yow yàlla. Hmm. laxat gaayo ma bi àq samt sa yërmande. Hmm. bi haajit maa ngi lay ñaan. Hmm. ja laxaafata jal jalat yow mi borom kattan gi. dëgg la na ko bi arfin te nga jox ma ci lépp. nga ne ko bi sam-samin ci réew mi nga xam ne yaa yër lépp ak borom xéwal yi nga ne ko bi tam-tamit nga ne ko bi arfin te nga boole maag rawaan yi sell yëpp bi arfin bi sam nga ne ko bi tam-tamit bi arfin eh, eh, mixraas mixraas nga ne ko yow mi nga xam ne yow yaa aju borom xéwal gi bu ma ñàkk dara ba abadan suñ borom bi na loolu nu ma la ko joxee nga na ko nag waa indi waay ba yow yaa dax maalul wa dee bu sotee fo ko baax la waaw man man bu ko ñeneen ñi déggee ah. te nga xam ni ñoom seeni mbir ay secret la ah. dañoo bëgg ay doomi aadama di ñëw ci ñoom mm. di ko fa wut si mm-hmm. ñu ciy dund mm-hmm. yow nga toog fii di ko lal nii mm. mbaa duñ la sot sotoo déedéet maanaam loolu amul si ndax man lii ma wax nii. amul kenn ku ko mën a liggéey. te hmm. xamu mbuutub secret gi ndax mbuutub secret gi du ma ko wax. waaw loolu rek laa doon. léegi déedéet man nag am lu ma bëgg. waaw waaw man li ma koy laaj mooy. Hmm. ndax da nga am bërëb boo xamante ni ku jug fa la lay fekk maanaam lu mel ni euh, centre wala foo xamante ni. Hmm. par exemple ku jug rek xam na ne fii sëñ Bas ku dem dina ko fi fekk. waaw man damaa dama. maanaam yeneen régions yi est xam nañ. exact kan mooy sëñ Bass donc damay doog a ah, juddoo rek xaw ma dama doon dem ci région du Louga dem région du Mbour tijji fa ay ay place ay ay ay clinique yu mag léegi yàlla def euh, doole ji ëpp mu fii Sénégal ma dakaar gi bokk ma nekk Dakar toog fi mais ku nekk am waaw ci fii ci Sénégal yépp euh, adduna bi ñëpp ba bitim réew ñu mm-hmm. bari xam nañ ma ñu bari jëflanteeg man mm-hmm. ay ponkal yi laay di ñuy jëflanteeg man ñu dul ponkal waxuma doomu aadama yi ñoo xam ne nii ay xaas mooy ponkal mi déedéet su ma nee ponkal mi rek fa laa mën a yem wax ji nag ku ko waay firee yow yaa xam mais damay leeral mais ci li ma mën a wax mooy maanaam clinique bi nga xam ne man yere naa ko fii ah, ci kër Baye Fall bu maanaam bu clinique laa ko tuddee ndax mhm. fu li nit ñi di dawee di ñëw du ut ci wér-gi-yaram te ku ñëw da nga wér kon mhm. clinique la mhm. ma tuddee ko clinique waaw ma tuddee ko xam nga lan laa ko tuddee xam nga lan laa ko tuddee entreprise soppe Seydina Mohamed clinique médecine traditionnelle bu kër Serigne Bassirou Ndiaye. ma ñëw léegi. ak ah, Kër Massar waaw léegi wuyu ma. Ah, kër Massar gi laa ko ubbee. Ah, waaw waaw Serigne Bass hmm. Hmm. bu ma déggee sa wax. dof ci yàlla bu doppooral hmm. bay dox ci mbedd mi defi sagar di dem bu ñëwee ci yow nga def ko mu doon nit muy benn ñin ñi rab yi jàpp muy ñaar waaye dafa am lu nga xam ni man dafa ñëw rek nga ne ma sëñ Bass mu am lu ma fàttali am lu ma jox moom amu fi woon coow ah waaw. Mm. waaw moom mii. waaw waaw. sëñ Bass mii. waaw. waaw waaye nag. waaw déedéet ah fii moom nangoon dañuy waxtaan rek. Ah, nag waaye nag et puis nag sëriñ la suñu maraabu la waaye nag. waaye suñu morom la nag jeune la. amoon na ngoonal ah. moom. sama xarita ndax mii su mbulu mii sax dama koo bëgg a woo ndax xam nga ñëpp tey war na noo xam seen bopp. ah. jigéen ju war bëgg a am doom te mënut am doom. Mm. jigéen ju bëgg a sëy te mënut sëy. nit ku am beneen jàngoro sax bu dul rab. Mm-hmm. man mii leer na ma ci moom mii. da koy faj am naa ci da koy faj. Mm-hmm. non waaw coow li mu fi amoon. waaw coow li nag. coow li mu ne du teew. ñuy nataal waa sa xarit kay. coow daal dañu ne. Mm. wala xam nga coow li fi amoon. Ah, dañu ne daal am na ku jigéen. Mm. ku génn ci média yi. nekkat tuumaal ko. Ah, ne daf la doon faj. am leneen lu nga xam nag yeneen ak yeneen yu nga xam ne xam nga média yee ko wax. réew mi wax nañ ko de. Mm-hmm. réew mi wax nañ ko de. maanaam nag dégg lañ ci am. Ah. te ginnaaw ngoonal lii moom fi la ñu bëgg lépp ah, leer waaw defuñu ko nag ngir woote mhm. wax la di xaar keneen ñëw di tontu mhm. waaye li ñu dégg la rek mhm. kon gan bu ñu am dégg dara si moom dinañ la ko wax waaw jërëjëf euh, laaj bi yëpp daa mel ne bi yëpp ci gën a neexati sax ah. may nu may nu waay nu woo sunu sunu sunu jigéen jii diñu toggal fii ci kër gi sunu mindaan bii aywa aywa aywa su mulu la nga naan mindaan ki ah. maa fi andi mais mindaan la dañ koy fay weer yaa ngi lekk ngaa wax ba kii du nekk mindaan lii yaa ko moom nga maa ngi xew lu kay waaye man xam nga man damaa bëriwul kaay toog fekke waxtaan wi am laaj yoo laaj kii ëllëg war ngaa sëy ne xamoo ndax rab dugg na la wala dugg la kaay toog rek jàpp bokk ci waxtaan kaay toog mën nga bëgg am doom te doo ko mën a am kii da koy faj amul problème jarul ragal dàq na rab yëpp kaay toog toog dàq na rab yëpp kaay toog waaw maanaam toogal nii loolu ngeen laaj lu am solo la. waaw li nga xam ne wax nañu ko bu ma sañoon dañ mu leer. waaw maanaam. Mm. Euh, sax euh, ñun dañoo am kilifa. Mm. waaw. te dañoo respecté suñuy kilifa. waaw te ñu ñuy sax ci ndigal ba fas yéenee dee. ndax dañuy taalibi Serigne Touba. waaw te ban damay wuyoo soppee Seydina Mouhamed. yàlla dafa def sama loxo ndeyjoor sax du ko jox jigéen. waaw déedéet. man du ma seetaan lépp loo xam ne ni safaanu àdduna la muy caaxaan. Mm-hmm. duma ko déglu it soxloo ma ko. man arxuraan lay déglu. arxuraan lay jàng xasida laay déglu. man sëñ bee ma te dafa am lu sëriñ yu Mbacke def ci ñun. dafa ne képp koo xam ne ni bañ na ñu tuumaal la ci àdduna. ñu bañ laa wax. bul nangu kenn ku la xam kon. dafa ne hmm. sëriñ Fallou Mbacke dafa waxoon ne lépp loo xam ne nit def na ko. Hmm. di ko nëbb daa gënul te nee na bànneexu sëy wàccul lal ba waaye dafa wax ne ne koo xam dañ la tuumaal ñu wax ci yow loo xam ne ni nekkul nga dem nga daal di dem lay loolu effacé ko ne lii amul nga setal tuumaal bi bu ëllëgee bu ñu la tuumalaatee demoo ñu ne moo ko def dëgg la moo waral yu mel noonu su ma déggee ñu wax ko damay tànkamlu jël lépp joxaat yàlla sama borom xam na ne topp gi ma topp sama borom ak fonk gi ma fonk rasulaay mën na am moo waral suñu borom di jël natt yu ndaw yooyu di ko teg sama kaw suñu xarit nga nag war nga ñoo leeral ndax bu dul loolu bu dul loolu maanaam yonente bi salaa salaam dafa musan taxaw am benn doomu aadama mu ñëw ci moom na ko man dama laa bëgg bëgg sama borom mu ne ko kon nattu ak mbugal dina waaw maanaam bu day nekk sa kaw nattu ak mbugal foo toll rek da nga nekk ci situation mais na ko muñ xam ngeen ne Seydina Mouhamed kenn gënu koo sell mhm. te ku ñu bind ku ne moo tax te waaye am lu ne ci ci jëmm Seydina Mohamed nga ko amee lu tax mooy yàlla dafa ne damaa sàkk Seydina Mohamed waaye bu ma sàkkee mbindeef yi rasultaay rasulullaay moo tax ma sàkk leen benn Seydina Mohamed tuumaal nañ ko ci soxna Aïcha soxnaam soxnaam tuumaal ñu ñëw tuumaal ko na ko sa soxna nangam ak nangam jiin ko ci benn góor Mohamed mère Aïcha mère soxnaam ba mu meree soxnaam ba yàlla def mere googu mu ko mere bay ba ba lijjanti bi jot suñ borom bi daa xam nga mandu yàlla gi rek yàlla mandu mhm. ndax yoon dafa ne tànk li ñu wax aw ma lu ma ci leer dootuma bokk ak moom néeg mhm. kan moo wax loolu moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ba ñu demee ba tuumaal li leer mhm. suñu borom bi moo yónni ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ko lii nit ñi di wax dara du ci dëgg si la yonente bi waat soxnam xamal ko na ko li nit ñi di wax dara amu ci xam ngeen ne yonti yàlla yuusufa gis ngeen jabaru buur bi nu mu ko xëccee woon mbubu ko ba mu ma xottee ko liir ba wax mm. waaw mu eh, muy kon gis ngeen nu mu tëddee ak nu mu demee kon man mi suñ ma waxalee dara man du ma ko bañ waaye lépp lu ñuy wax ci man rek maanaam ku lay sédd ci gaalu xaj bu mu la fa séen lu ñuy wax ci man rek bu ko kenn gis muy benn maanaam kii ko bëgg damay bëgg ñett buñ ko gis ci man mm. yàlla sama borom ak ñaari malaaka yi teg sama mbagg mm. a yàlla rek mën a seedal jaam yi ëllëg tribunal bu mag bi moom yamal xiyaam la nekk te maa ngi xaar yàlla àtte ma kooku tribunal bu mag ba xam nga réel ko xaw ma ko xaw ma kan la xamoo ki la tuumal non non non dafa naa xam nga lu tax ma wax la loolu hmm. mënu ma la wax nii la tudd mënu ma wax fii la dëkk mënu ma la wax fii la adresse am nekk réel ki kii wax man jàpp ma ne kooku est-ce que bonam la wala leenam la est-ce que nekkul koo xam ne ni ay rab a nekk ci moom rab bi dem di yàq wala nekkul koo xam ne ni da euh, nit a ko carrière def ko muy ku monté xam nga man mënuma la wax ne la nii lii la lii la ndax xaw ma ci dara xaw ma ci dara dëgg yàlla hmm. da ngay jàpp ay rab di leen duma hmm. yaa ko fi wax waaw di leen toroxal toroxal kay di leen def naka sudut noonu ndax doomu aadama daa sëñ bi nga defe ne rab yi yow hmm. merewuñ la merewuñ la teg la dil. indi la ci loolu ndax señ bi dañoo bëgg. tey jii nga leeralal ñu ndax ñun tamit ëllëg gis sibir man mii surtout man may ci sab xarit bu ma déggee wax ji ma xam fa may teg sama tànk ak kàddu yan laa ci yëkkati mbir mi sa digganteeg ndaw soosu nan la demee. xaw ma ko xamoo lu mu demee. mën na ñëw ci man di faju waaw mu ami rab fekk man maa ngi koy faj ndax man ñi may faj bari nañ. mais mhm. man xaw ma ko mais man yàlla dafa def lenn ci man. man képp ku ma seet ci nga ñëw sama bureau. Mm. dama am ay secrétaire. Mm. am ay personnel liggéey. Ah. li ma yere ay équipe laa yere. entreprise la entreprise la ndax weer bu dee ku ci nekk dama lay jox sa salaire nga may liggéeyal normal ay mbàkk mbàkk ñoo fay liggéey. sëtu Serigne Touba ci boppam mm. ñoo yere wàllu mbind mi. ñun dañuy sellal jubal dëggal ak leeral. waaye loo déggee foofu caaxaan amu fa coow li noo ko déggee. coow li man fàtti naa yooyu sax yéen a ma ko fàttali. li mm-hmm. ah, dafa garaawoon de. waaw xam waaw am na ñu ci xam na ñu si dem hôpital. am na ñu ci waaw tension dafa yéeg. waaw dafa yéeg donc bul ñàkkal fayda wax ji ah, wax ji non de. Ah, ñàkkaluma xam nga lu tax clarifier daal xam nga lu tax ñooñu. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. nga bu fekkee da am sa sëriñ. mu lay faj di la ñaanal nga toog dégg ci moom benn rimel boo xam ne yow. rimel bi rafetul. du neex du la neex. law waaye xam nga lan moomu dan moomu si doon métti. déedéet xam nga lan moomu si doon métti saa neex day fekk bu fekkoon maa ko def waaw moom lu mu wax fekkoon maa ko def moom lu mu wax moom eh, déglu ma son yi wax ji wax ji xam nga lan la li mu wax wax ji xaaram ma wax la rek xam nga wax ji lan la sëñ mbas dinaa koy gis ci miir bi bu guddee man lay feeñu wala ma gis ko fii wala nangam nangam yooyu ay ay ay ay jël na sama làmmiñ ak wala yooyu wala daf maa nap man yooyu man am naa droit nap nap nap sax am naa droit jigéen su ma gis bëgg naa la moom na nap la reer ko fekkee dama bëgg takk man benn jabar la aw ma droit takk ñetti jabar tey aw ma ma fekk si ñett kee muy ñeent sax gis naa sa soxna waaw léegi nag man hmm. yàlla dama koy wax fii ci télé bi mu ma toog ñëpp di dégg ci ngoonal gi ci ngoonal gi bopp hmm. man xam nga kan laa bëgg hmm. sama soxla sama bàyyi kër ga sama soxna moom laa bëgg man nabanteew ma ci teew ma ci ba pare du ma doxaan kenn du mu nuyu jigéen seeti juuma kenn soxla mu ku ma toggal ndékki ak ak reer ku dul moom ci kër gi muy ah. soxna maam Marème Cissé yàlla na yàlla guddal fanam ndax bu dul dara déggal na ma muñal na ma mm-hmm. teyit yërëm na ma mm-hmm. teyit topp na sama ndigal daw si samay tere teyit jigéen dàqu kon man lan laay wuti. Ah, bu fekkee na koo xam ne nag bu fekkee ne koo xam ne la bu fekkee ne koo xam ne la moom ci boppam. maanaam dafa am ay doom wala mu am leneen ak leneen man maanaam tey jii bu doon suba suba wala ginnaaw suba ni demaat na ci rajo na ma sëñ Basirou Ndiaye nangam nangam nangam. Hmm. la ngay wax man considéré wu ma ndax man defuma ko. xam man lan la moon ma doon métti. Hmm. mooy li mu wax bu amoon dina ma métti lool te bu boobaa. dina dina xam ne ne lii man maa ko def te ñëpp dinañ xam maa ko def te sax bu ma ko def bu deen def naa dara lu toll ni bën bënu puso ñu wax ko ci man mën naa toog fii waxaat ko ne man nii ñu wax man maa ko def bañu ma weer benn xam nga lan la yomal xiyaam xam nga yomal xiyaam jëf doomu aadama dañuy balancé wu dara du échec waaw kii dafa am ay laaj nga ni yow man rab ma jaaxal fi ne nii rab lan mooy rab rab mooy lan bul delloo si wax ci bul sàcc ci film bi da nga ne ndax moom mën naa liggéey liggéey bu bon waaw jigéen ñi ñëw di liggéey seen seen seen seen jëkkër waaw subhanallah maanaam maa ngi jéglu sax ci déggin gi man maanaam yàlla dafa def balaa may liggéey damay taxaw def li ñuy wax discours discours waaw bu am solo muy discours bi nga xam ne ne dama ciy delloo nit ñi ci wàll cosaan ak wàll faj wax leen ne leen yàlla dafa bëgg jaamam bu ko jaamam bu mu teg nattu mu nangu nattu boobu waaye boo koy ñaan natt bi suñu borom bi dindi la bu ci dara am jibar bu ci dara ànd xërëm waaye bu bul weddi yàlla mukk ci nattu bi mu la teg ngir nga koy dindi bu ko weddi sëñ Bass moo tax man moo tax ma bëgg maanaam waxuma comme damay taxaw di ko def discours avant may liggéey dama ciy dama ciy profité occasion ci ci ci ngonnal li mm. wax ci ne bu benn jigéen dem ci sëriñ naa ko lu yëgal ma sama wujj sama goro sama njëkk sama mm. xarit dëgg la wala ki nga bokk service mm-hmm. gis nga nit ki loo def doomu aadama fii balaa ngay dee da ko gis thanks la da ngay dóor rek mu ñëwaat mu ñëwaat man ma bëggoon mhm. maanaam ci biir loolu mhm. su ma yàlla mayoon baatin bi nga xam ne mën naa def nit lu bon mhm. kitaabul naa ci barki laa ilaha illallah ci barki Seydina Muhammad bu ma naree yëkkati sama loxo ndeyjoor jël xalima di ci bind jëmale ko ci doomu aadama lu bon yàlla na ma suñu borom bi mbugal man du ma ko def waaw mu ni. léegi man su ma ñëwee may sëy. comme may sëy sëy bu yàgg. ñu doon sëy daal kon bi ak bu yàgg may muñ di muñ di muñ ba tey yàlla def mu mu neex. moom mu dem xool ku tuuti ñëw tax ko. kooku ñëw di ma def yu metti dem ci sëriñ di ma liggéey di ma def yu metti daal. di tasaare sama njaboot du genre. yaa ngi dëgg nangu sama jëkkër man sëñ Basiiru mooy sama xarit. xaw ma kenn ku dul sëñ Basiiru am naa droit ñëw ci sëñ Basiru ñaan ko ndimbal. Mm. mu dimbali ma. Mm. léegi sañ Basiru boobu waaw ah day bañ. Mm. su fekkee ne ne maanaam yow da ngaa am problème ak sa borom kër. waaw soo ñëwee mën naa leen boole ñaanal leen ngeen juboo mm-hmm. kay su fekkee da nga am problème ak sa wujj mën naa leen ñaanal ngeen juboo kër gi neex. dëgg la. mais en tant que sëñ Bass génneel sama wujj ci biti hmm. man ma fallu toog ci kër gi sëy sëy bi hmm. dama naan la kon sëyoo sëy bi ndax kuy sëy sëy bi du da ngaa war a digal sa lu baax digal ko ki nekk ci kër gi loolu ma am solo rab rab rab moom ci cadre jinne rek lañ ko mën a jàppee rab ci cadre jinne lañ ko mën a jàppee ndax day dugg nit ki te doo ko gis di dem na ba ki muy dugg mu koy feeñu mu koy gis en général rab yi dugg jigéen ñi di leen daane di leen sol rab yee sol yëre yi ñuul kukk li ñu sol ba pare éma yere émage xam nga dangay toog fii lee nga xëcc ci xobu garab gi def ko xaalis léeg-léeg nga jël dara euh, def ko xaalis ñëw yu mel noonu xeetu wàll maanaam jinne la maanaam dafa mel ne lu ñuy wax comme luxus mais amul njëriñ ñu bari dañ koy def di ci ndax nit ñi da ngay gis koo xam ne ni day dem ci nit ne ko damaa bëgg nga luxusal ma lii ma am lii mu mun ma loo sol soppi la ko la mu duble la ko yëpp ay caaxaan beneen bi mooy jigéen ñi dafa am ñoo xam ne am nañ taar mel nañ ñu leen mën a neex waaye borom këralinte wala ñu mën a toog ci sëy ba fekk rab moo leen di topp léegi jigéen ñi dañoo tumuranke dafa mel ni dañoo amul moyen pour solu fekk am nañ solo da gis ko jël cent mille francs jëndee ko yëre boo xam ne hmm. bu ko solee arwam yëpp day nekk ci biti ñu baal ma ne sama ko jigéen ñi war nañ sellal ah. jubal leeral dëggal hmm. maanaam jigéen dafa war a sàmm ay cëram sàmm hmm. kàddoom muy baatam ndax gis nga mën ngaa toog léegi guddi wala benn heure boo xam ne waroo ci wax ci kaw nga yuuxu am loo xam ne da ci lay profité pour jël la am na benn xale bu jigéen boo xam ne nii boo ko gisee rab bi donc day jël mu ngi jógee woon euh, Fuuta ñëw ci man seet si ma day jàng po saagam bi muy euh, saag bi muy def kayam yeeg big yeeg yooyu bu dugalee kay yeeg big yépp ba pare waaw saag bi ci boppam jinne bi rab bi rab bi ko toog day taal saag bi su ko eh. taalee kay jéeg yëpp day lakk waaye saag bi du lakk su demee di jàng bu demee ci àll ba nee na ci tool yi foofu nee na day toog mu yàgg dégg néegu mun xes maanaam saxaar buy lakk maanaam néeg buy lakk daal dara luy lakk nee na sagar yi lakk ak yi di ko xeñ xet gi nee na mu nee na ay kilomètres la mu sentir ne néegu yaayam lakk na gis nga néegu yaayam bi da koo lakk lakk lakk lakk bu mu ñuul kukk ba dem na ba yaayam ci boppam sax dem na ba lakk gi néeg bi di lakk yaayam mës naa dugg ci néeg bi ba néeg bi di lakk ba yaay ji lakk ci yaramam waaw xale bu jigéen boobu dafa mel ni dégg naa ko muy wax rajo mais dafa ne dem na ci sëñ bas dem na ci euh, bokk la kooku mais kooku moom rabam bi kooku 10 ans ñu wax moom la am waaye man yàlla dafa def koo xam ne am na fukki at néegu yaayam di tàkk ak yooyu mu ñëw ci man di faj jàppaguma boobu malaat amagum naa ko waaye am na ñoo xam ñëw nañ ci man seen kër di tàkk ñaar laa ci xam te faj naa leen ba ñu wér te ñaar ñooñu ku ci nekk ëpp na vingt ans dafa taxaw ci rajo bi cité sa nom sa tur mu ne moom ñëw na ci yow faju mm. na ba sonn mm. mais moom addunaam daal mi ngi bëgg a yàqu waaw pour xale la bu jigéen maanaam maanaam dafa dafa ne dégg naa wax ji dafa ne dem na ci man ak keneen ci beneen sëriñ di faju pour affaire rab bi ndax doomam fukki at la waaye néeg bi day tàkk du loolu la wax uh-huh. ba mu waxee loolu ba mu waxee loolu maanaam man bu fekkoon ne kooku ñëw na taxaw jàkkaarloog man su fekkee ñëw ci man dinaa xam bu fekkee ñëw waaye man mënu ko ma jàpp ne kii la waaye lu mu ci mën a doon rek ak ku ko mën a faj ku mu mën a doon bu mu dem mukk bëgg tey mu wér mu faju tey mu wér tey gis nga rab ak jinne kenn du leen faj. te amoo weexal te amoo weexal il faut nga jox sëriñ bi weexal mu faj la la. maanaam man damaa bëgg a laajte. damaa bëgg léegi nag yow suñu bas. li ñu ko wax yëpp rafet na leer na nañ. waaye defe naa ni sëñ Bas. est ce que yow li ngay wax ne nit jinne ak yooyu yëpp am nga jinne dina n'est-ce pas am nga ay jinne. ya yu bari. waa léegi mën naa def benn dama. waxal bu ko teg loolu sëñ Bas xam nga ne ñii dañ laa bëgg a yeb. preuve laa bëgg. damaa bëgg nga def. preuve man mi la xam. tey boo génnee kër gi bu ñu jaxase gan gi. kan moo ko fi yëpp ah, kii laajam dafa dafa <laughs> soof trop dama koy laaj ndax mën naa wane fii lu wane na moom am na ay jinne ma wan ñu ko fii moom mu defal ñu kéemtaan fii ñu xam ne sëñ Bass mi bu moo indi jinne man daal benn kéemtaan laa la ñaanoon sàmm nu mu toogee nii hmm. ma jékki-jékki du ma ko gisati nii mu toogee loolu moom mënu ma ko loolu mënu ko <laughs> ndax sàmm nit la ah sàmm du jinne waay waay mën nga kéemtaan mën nga def kéemtaan damaa bëgg nga ah, defal nii kéemtaan. fi ñu toog nii ah, ah, ah nga feesal del table bi xaalis léegi mën nga ko. ma génne fii xaalis. waaw waaw loolu mooy tax nga gëm man am naa jinne loolu su ma ko defee. ndax loolu mbir jinne la waaw déet mais ma ko defee da nga ma ko def de dafa naan. waaw su dee su ma ko defee ndax da nga gëm am naa jinne man kay gëm naa ne am nga jinne fu ñu toll nii. waaw ko nii waaw waaye preuve preuve preuve xam nga paaka lu ñaw ñaw daas ko yàqu ci dara. waaw yàqu ci dara loolu day am baax. waaw promesse bi bëgg nga wan leen man naa taable wu man ndax xam naa la am nga foo jaar ak man. Mhm. mais damaa bëgg ñoom ñii. nga xam ni jaal ah, seet lekkuñ ko. weddi wuñ ko de kii nga xam ni ku ñëw mu dàq la. weddi wuñ ko de amagut borom kër. Mhm. nga ñaanal ko. ñaanal kii. ma am kii it nga ñaanal ko. waaw yéen ñëpp ma ñaanal leen rek. très bien damaa bëgg nga wane fii. àdduna yëpp di gis. nañ ma jox morso ma wan leen. non sumulu dama leen di morso. day tey mu deex. man daal fi ji waa boo ko génne woon ah, yaa ne ma tegal li fii xaalis. waay yow waaye nag xaalis bi ma lay tegal maa ko day nekk sama kër ma woo ko mu ñëw fii. loolu nga woo xaalis bi fii. waaw sama kër mu ngi kër Massar. loolu doo ko defee kër Mbay Fall kër Mbay Fall. ma ne ko indil ma dara fii rek. waaye yow sëñ bi ku mënta am euh, doom fajam gaaw na nga xam ne jigéen du mënta am. non sans dépend dafa bari façon. dafa am yoo xam ne docteur a koy faj. am yoo xam a koy faj. waaw am na yoo xam ne ni ñun ñoo koy faj. kooku docteur bi munu ci dara. am na ay ñun munuñu ci dara. Ah, dafa am loo xam ne ni docteur bi moom la war am yoo xam ne ñun la war kooku yàllaa ko def borom suñu borom bi la kéemtaanu yàlla gi la. maanaam. maanaam maanaam dafa am ñoo xam ne ni. sañ bi mën naa jël rab moo leen di tee am doom. Hmm. am ñoo xam ne ni problème mu ay trompe la ay wala ovaire yi wala problème mu fibrome la wala yeneen ak yeneen. Uh-huh. voilà fànn yi dañoo bari. tàllalal morsi ndax bu ma ko tàllalee ñu ne maa ci def dara tàllal ko yow yaa koy tàllal fëgg ko. Euh, damay bañ ñu ne morsi bi maa lu fi borom kër gee ko moom. borom kër gi am na ba pare. da da nga koy tàllal lem ko ci digg waaw. man tàllal nii. man xam nga ma métti da bëgg naa ko kay. àndu ah, leen ak seen ah, yéen yéen yéen du ngeen ay suñu. léegi waa def na na na na na wane gan suñu gan la di. Ah. ñu def ne saa def ngeen xam sàmm saa. saa saa wuyul fii. Hmm? nee na ma wane fii. lu fi ne dara newu fi. leer na nañ. dara nekku fi. tegal ni sama loxo. mi ngi nii ku tedd. tegal ni yëgal. bisimilah <laughs> rahmaani rahiim alhamdulilah. rahmaani rahiim maaliki yawmi diin léegi euh, euh, damaa bëgg rek nga ne nga sama rawaan bi sama jinne bi. na ko na ko li ma koy laaj na ko indi léegi jox ma ko. kan moo ko koy wax Samba kay laaj. non ah Samba ko koy wax na ko sumbulu laaj. sumbulu laaj de yéen tee laaj. nu tudd tudd ah? nga tudd ci tam xay saa ah? tam xay saa. tam xay ah. saa. na ko sëñ Bas nee na. sëñ Bas nee na. nga jox ko fii dara. nga jox ko fii dara. lu gaaw lu gaaw na melax na melax. nee na ñëw na nekk mu ñëw na. kan ñëw na. nee na ñëw na mi ngi noonu muy boxom <laughs> sax moo ñëw li tey ngeen yombi xaalis baa ngi noonu muy boxam. dina la nii. Cheikh. ah. xam nga xam nga man de xay sànni sànni ah. waaw waaw quoi. mi ngi nii. Mara. waaw. Tam Saxisa moom góor la wala ji Tam Tam Saxisa <laughs> Tam Saxisa. Tam Saxisa. baal ma bàyyi bañ a mën tur bi rek. Ah. <laughs> xaalis na fi génn nga naan ni nan la nii. kii seen bas. man du ma am xaritu pucci pucci bàyyil xaalis bi tam xaysaa da lay pes de. maanaam naa ne kenn yoru foon xaalis de. maanaam. déedéet du sa xaas de. lii sama xaas bi sama kër ga jóge ñëw kër koo demee oto ngay may vérifier rek. ndax mën nga koo delloowaat kër ga. ndax lan lii. ah bien ah, sûr mën naa ko delloowaat man mi ko indi kay mën naa ko delloowaat. waaye nag déet bu mu dellu Ndiaye. waaw ah. billahi bàyyi ko fi. ndax kër gi. waaw dañ fay bëgg ubbi kees. waaw eh, xaalis bi bàyyil mu dellu xaalis bi du ma bokk ak moom kër gi <laughs> xaalis bu jinne indi sàmb yaay xaalis bu jinne indi du ma bokk ak moom kër gi li xaw ma ñaata la dama ko laaj rek nee na dox ma dara su ma bàyyiwul woon fii day fees del nga ni ko su ma bàyyiwul woon fii day fees del lu tax nga bloqué ko déet nii moo gën dama leen di wan rek <laughs> pour ngeen xam ne jinne am na ndax yéen ñi fi toog yéen ñi fi toog leen ko def jinne laal la xaalis bi ci loxo déet ku ma ko jox yow bu joxee turu nit di ma booleeg moom mu topp ma mu topp la ci maanaam intérêt la wala du intérêt nopp ma maanaam mu nab la hmm. yow ni nga jege ndaw si est sa jabar la saane nii nii ah. waaye doxul suñu duggante seen ah an kay jege nga ko de hmm? jege nga xale nii nii jege nga ko trop waaw jege nga ko de ah lislaam de moom kii na ci moom ah. ana morso nga ko de morso ba ana waaw sëñ Bass ah. morso baa xam naa dëkk sori na jot amul Mm-hmm. bëggoon nañu waxtaan wi gën a yaatu nii mm-hmm. waaye liñ fi jot a waxtaan nag mm-hmm. ku ci am lu lëmb sa xel wala nga bëgg faju wala nga bëgg faj euh, am koy faj na nga waaxu ba Kër Massar sëñ Basiru Njaay nga fa ci kàttanu yàlla nag yàlla rek a mën <laughs> mën na laa jàppale sa jàngoro fa sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant sàmm doo téye sër bi <laughs> ñu ngi lay gë. yow ñu ngi lay gërëm di la sa di la sant. di la ñaanal yàlla suñu borom. sëñ Bass xam naa ne dañu lay bàyyi ak moom mu gunge la. <laughs> waaw ah. kontaan nañu. sàmm na guddi na nag. maanaam léegi la ma leen di waxee mooy nañu góorgóorlu. dëgg la te dellu ci yàlla. Mm-hmm. ñëw mu fi ci wàllu ta ci wàll kii bi. Euh, euh, ngonnal gi mm-hmm. pour wax ne. Mm-hmm. Euh, man pour pour seetal sama der wala yooyu wala dara wala ma laaj woon sa du ma ci tontu maa ngi jégalu nag képp koo xam ne ni mhm. sa détail bi ñu ci détail neexul la maa ngi koy jégalu waaye réel que rek mhm. pour ñu xam kan mooy sëñ Bass Ndiaye soppee Seydina Mohamed damaa bëgg ñu ñëpp ñu dellu ci yàlla mhm. dañoo xam ne yàlla rek mooy buur amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom mooy laa ilaha illallah Seydina Mohamed ca moom la ñu war a julli ñun ñëpp ay doomu aadama lañ te dinañ dee wuy suñ borom bi dama laa bëgg a may Samsung Galaxy waaw ah, déet waay yàlla na ko suñ borom bi yokk ful ko dina jeex na ñëpp dinañ ko gis sama loxo sàmbalee gunge jeex na sant nañ bu baax nataan nañ bu baax jërëjëf jërëjëf na nañ ah sàmb guddi na nag da te yaa koy gunge ah. kii maa koy gunge fexeel ba génn kër gi nag. waaw. <coughs> gunge damay amoon na ñaan ñu taxaw nii sax. ñaan ñaar.